Euh, ñu ñëw un ci gouvernement bu yees bi bi ñu ñëwee def bien vrai que yàggaguñ fi deux mois et quelques jours teg nañ quand même nañu ay actes am na ay jéego yu nga xam teg nañ ko rapport yi génn na ñu ngi koy fësal. transparence bi nga xam ne sénégalais moom la ñu bëggoon sur telle ou chose yenn yi mu ngi génn. Mm-hmm. problème foncier yi nga xam ne ko doon dégg ci Sénégal yàgg na fi mais ñoom ñu ngi koy fësal. Mm-hmm. gis nañ récemment ñu def benn premier pas wàññi li nga xamante ni moo di dund gi ndax li nga jot a gis dal na sa xel ci gouvernement bu bees bi. li ma ci jot a gis dalul sama xel te xaawuma ci lu dal sama xel parce que ils sont bu ñuy ñëw ci. ils sont incompétents ah, eh, bi ñuy ñëw ci littoral bi. populisme politique lañ doon indi parce que buñ la joxee réew liggéey lañ la laaj laaj ñu la wax yow yaa yore gouvernement di liggéey jarul sax ngay dem di wër ci littoral pour arrêter ko mbuurkat bi ñu fa demee ñoom xam xool nañ li fa nekk 247 terrain moo nekk ci ñoo xam ne waa Pastef dañ ko am ci ci biir mbuurkat dafa am ay opérateur économique yu ne ci biiram ak ay promoteur immobilier ak ay promoteur terrain ña fa am suuf ñenn ñi te doon ay promoteur terrain état du Sénégal Macky Sall mayu leen suuf directeur mayu leen suuf dañoo séddee suuf mu koy jaay ay sénégalais ñu am seen alal dem jënd ci ay nombre de terrain pour def ko ay logements sociaux parce ay promoteur terrain lañ ak ay promoteur immobilier mu duggee fii ci littoral lan la mujjee ci table de négociation bi mu demee Mbourkat lan la wax dafa newaat léegi dañ koy jox ay promoteur immobilier ak ay ay promoteur terrain ak ay promoteur pour ñu tabax ko ay logements sociaux mais am na ñu fa am suuf ñoo xam ne ay promoteur terrain lañ ak ay promoteur immobilier seen suuf loolu la ko doon doyee jël ko pour aménager ko

réew moo xam ne 150 000 personnes ñu accèdent emploi par année 6 pour cent moo ci am formation soo bëggee créer d' emploi dina métti te état du créer d' emploi day yu créer d' emploi président tabax na ci département yëpp am na département sax am na département yoo xam technique yi am na ci département yi am na faculté métier dugalaat nañu ko ci biir université yi mu ne boo leen jógee ci loolu commencé leen parc industriel yi ak marché international bi ak parc industriel bu Mékene bi di tabaxaat parc industriel Touba bu 60 milliards continuer ne 45 départements yi nañ ci tabax ci jëf ngay def président Macky Sall moo gën a noppi ci président yi communication bariwul li mu jëf ci Sénégal daf extraordinaire booy politique mën ngaa bëri wax booy opposé wu. lan moo dalul sa xel si nguur milliards for accompagner ko les PME

départemental ak antenne régional loolu lu koy permettre rek capital financier bi nga xam ne bu fekkoon ne lettre de garantie dafa am ñu ne léegi yéen ñi nga xam da ngeen secteur formel am ngeen 500 milliards pour tey directeur secteur bi su bëggoon am 10 milliards pour def yeneen investissement mën na ko am mais am lettre de garantie de l'État mais bu mu am détournement d'objectif parce que li ñu koy doyee mooy bu créer antenne yooyu ñaata l'emploi lay créer ci l'emploi. mais détournement d'objectif yooyu. moom moo bari. ah non loolu la ñu révélé depuis depuis moo tax bi yaa ngi wax euh, euh, waruñu nekk di wax lu bari. waaw mm-hmm. sénégalais yi ñoo bëgg xam. moo tax ñoom ñuy wax. parce que li ñu fësal. boobu ba léegi. waaw sénégalais yi dañ ko. am na lu ñu fësalagun loo jàpp ne épinglé nañ kii ne diw dafa ja diw dafa diw dafa def dafa détourné nangam daf ne ay rapport a ngi ci taabala. waa de rapport yi fës na. waaw kan kan rapport yi ñu fësal. da nga xam ne ils sont ils sont. impliqués man man dama man la laa wax dama ne képp koo xam ne joxoon nañ la post ndomba tànk ci biir coalition benn bokk yaakaar jox la ministère wala poste directeur général. nga téye alalu réew mi caxat caxatee ko def ko ca na la neex na la gouvernement bu bees bi topp loolu ñun duñ say défenseur. Hmm. donc je vais pas revenir sur ça. parce que euh, rapport yi wax na ko mais mais bu ñu ñëwee kaaw mbuur kat bi ngay wax. yow est-ce que tu trouves normal que benn nit. Mhm. responsable politique euh, soi-disant nga nga nga yow kase nga am lu toll trois cent euh, hectares. Mhm. ci suuf. Mhm. pendant ce temps. mais mairie bi mairie bi sax. daanaka li liñ ko liñ ko jox pour mu mën ko séddale ay ay ay ay population mu mu mu néew lu benn nit am pour jox la exemple est-ce que répartition bu mel noonu dafa dafa xam nga ñun ñun repère ñun ceewo dégg nga ci coow li dégg nga ci ceewo dégg naa ko bu wax ceewo xam nga amul problème man ceewo bi ñuy répartir suuf si ñu doon joxe suuf si man bokkoon naa ci di ci liggéeyande ak madame Sibou Sépi ñuy joxe nañu fa ñun 6000 terrains RTS dañu amoon convention ak seen syndicaliste seen syndicaliste bi jox leen 1500 terrains ama convention ak synthèse euh, jox leen 1500 terrain. mais loolu amoon jox waaw déglu ma jox as da ngay bàyyi ba ma développé jox hmm? as ko dem 1500 terrain doo ko jaay yeneen 1500 terrain te ni ñu koy jaay inscription 40 000 ngay def euh, weer wu nekk 30 300 francs ñu jox la benn terrain buy jaay 2 millions 500 boo defal la bàyyi soo fayee moitié bi ñu jox la pour nga tabax te ñu ngi doon chercher. ay promoteur terrain immobilier yu leen ko mën a tabaxal ba sénégalais bi. da ko tabax te du ko ah, yëg. Ah, mais cité wuñu leen cité wuñu ko def mu mën ci am kër. cité leen parce que ah, ko jaarale man ñeneen ñi nga xam ne dañ def ay promoteur immobilier promoteur terrain bi coow lee amee laa ne leen man d'accord ma benn sénégalais ni Sénégal jafee location serre métti. Mhm. sorti péage yëpp comme mbuurkat ni mu nekkee sorti péage am na yeneen sorti péage nañ ko aménager jox ko ay promoteur terrain parce que ñoom ñoo mën a dem ci seen banque lépp xaalis ñëw jënd ko jaay ko sénégalais yi jaay bu yomb ñu uti ji ay promoteur immobilier ñu ñëw tabax ko tabax bu yomb jox ko sénégalais yi mhm. parce que boo jógee woon ci sotti mbuur yi sotti Thiès dem xam nga bi ñu koy joxee am na ay promoteur terrain yu fa amoon mais patio bi maire Thiès bi taxaw ci ginnaaw Bassirou Diomaye Faye mhm. mais jox euh, mu mu jox mu jox 60 yi conseil municipal ana 60 yeneen 60 xam nga gis nga ko est-ce que conseil la ñu jox kër am na conseil dama ne du conseil municipal la ñu koy jox kër. kër suuf si mais mais moom expliqué na lan moo tax mu jox xam nga man lan laa d'accord man xam am d'accord nga lool man dama d'accord ne suuf bu amee même bu ñu koy séddee mairie nañ xool askan wa néew doole. leen te amul buñ ay kër mais moom critères yooyu la rek. man ñu jox noonu man ñu jox leen si critères yooyu ñi nga xam ne dañ leen jox en tant que ay promoteur immobilier. Mhm. ñoo promoteur terrain joxuñu leen. dañ leen jaay ñu dem verser trésor public. Mhm. su ko Sénégal doon récupérer waat ñoom Macky Sall jaayu leen Sénégal leen jaay promoteur immobilier yi fa amoon ay terrain bu ñu koy jëlaat dañ koy dem jëlaat ñoom delluwaat leen seen xaalis trésor public lenn daal laa d'accord mhm. man ñi ma ci xam te ñu am fa suuf dama ne man suuf bi ngeen am waxuma sax boobu mais beneen sax bi ngeen am budul boobu def leen ko logement sociaux alal ji leen yàlla dénk ngeen dimbali ci doomu aadama yi néew doole yi. alal yu leen Macky Sall ah, dénk kay ndax loolu noonu vraiment c' est trop. dafa li ñu li ñu dajale. non dama ne par moo moomale ko seen bopp te waroon ko séddale séddoo. ak yow gis nga gis nga kenn ko loolu moo bëri foofu. non man gis nga gis nga Maodo Malick Mbaye Thiès dëkk bokk ci alliance pour la bi ñu ko joxee tey jëlul yow Maodo Mbaye Abdou Mbaye Abdou Mbaye Abdou Mbaye Maodo Malick Abdou Mbaye xam nañ ko ba du ñëpp a ah, ah. bon du ñëpp a affaire du ñëpp a du ñëpp a xiif suuf gis nga li ma li ma la wax ci ci ci ci ci jëm benn sénégalais boo xam ne nekkoo promoteur terrain nga xam ne amul benn suuf bu ñu lay viabiliser nga dem fay au niveau de CDC mhm. jël jël trésor public jël xaalis dugal ko ci àll doom yi ñu jox la ko en tant que promoteur terrain bu fekkee militant wu APR kese nga woon wala responsable APR ñu jox la tere ci sat neex pour nga dem man li ma d'accord mooy. Maodo Malick militant APR yëpp ñu meloon. na ko na ko na ko na ko principe mu am Maodo Malick. na ko na ko na ko na ko na ko na ko na ko ma nee naa du ma défenseur du sàcc. du ma défendre kuy jël suufu Sénégal ci anam bi nga ko jëlee jëlul yoon. jëm jëmul yoon mais nag. po Sénégal problème foncier bëri na fi. mais gouvernement bi li ñu leen di xaar lool ci la bokk. ñu jàll ci may xam nga loolu ci la bokk. may la bokk mais li ci ëpp solo. mooy Sénégal gi ndaw ñi li tax ñu àndoon ak Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko topp ci ginnaaw Ousmane Sonko mooy naka la ñuy fexee ba am liggéey ci réew mi Sénégal nag li fi nekk ay fonctionnaire ak li li li ñuy jot ci salaire ci alalu réew mi boo nee mën nga créer waat emploi yu ëpp mënoo toll ci lu toll ni 8 millions de de nga am lu toll ci ay 180 000 de fonctionnaires ngay am plus de 800 milliards de salaire soo nee da ngay so da ngay créer da ngay conditions yu ñu créer ngay créer mais état du créer d'emploi day créer conditions yu ñu d'emploi. d'accord tey bi mu ñiy créer emploi ñoom lañ njëkk commencé sonal tey. léegi ñoom loolu la ñu xam nag. moo tax feneen fu ñuy jëm sax dañuy dañuy focus un peu euh, ci premier ministre bi Ousmane Sonko naka nga gisee taxawaayam. Ousmane Sonko moom bu doon ab jeega ba léegi fase nañ ndax du bon baat te daa bëri wax moom bi muy politique di opposé wu wax ju bëri baaxoon na ndax bëggoon na li mu doon wax Sénégal yi dégg ko mais comme sénégalais yi dégg nañ ba ñëw jox la sa sa sa poulain nga fal ko président ñu jox la euh, premier ministre ci ay euh, jëf lañ lay xaar mais xaarutaatu xaaraatuñ la ci ay wax. bi mu toogee bu fekkoon dafa bàyyi ba temps de grâce bi jeex ba mu def déclaration politique générale ba pare génn sax dem di wax ak ñun bu boobaa ñun sax ñu xam ne waxam am na sens. mais yow suñu responsable yëpp a ngi seen biiru photo ñenn quelque part si ñun rek ñooy génn di wax ci actualité pour média bi sax am. ñuñ mën a jàkkaar lool pour sax débat di dem ñee dañ ne nañu xaar ba temps de grâce bi jeex moom moo njëkk a génn di tëkku Sénégalais yi. ñaareel ko la tëkku la ak la ban tëkku la leen tëkku mais ku ku war a fay di nga fay. loolu non xam nga man sa sa impôt ku war a fay dina fay man loolu d'accord naa mais boo ñëwee ci société euh, bu bu mel ne 7TV ci laay jël référence nga ne na fay xam nga lan ngeen njëkk a xool ndax kii bi mu jëlee télé bi samp ko defar place am defar léppam di liggéey am ay journalistes ñu liggéey ci biir ñu leen di fay ndax def na chiffre d'affaires su fekkee def na chiffre d'affaires deful benn perte amul benn pertement mu toog ci tey bakkanam fayul impôt Sénégal am nga droit topp ko mais man lu ma d'accord mooy nga xëy rek ne da ngay poursuivre benn. mais ñu impôt du xool ci ci data yi ngay wax ni. da nga war a fay rek da ngay fay. non mais mais non le problème mooy muy 7TV ak ku dul 7TV ñoo yem. koy fay. da ngay fay waaw. mais da ngay fay. parce que jaaykatu gerte bi sax dañ koy fekk fu muy jaay jël si moom sax. d'accord mhm. bu nit ki ñëwee nga xam ne am na impôt yoo xam ne fayu ko woon nga dem xool ba xam chiffre def na chiffre d'affaires wala deful chiffre d'affaires mhm. nga ne ko impôt bi da koy fay par moratoire du période tabaski ngay tëj ay compte bancaire am pour mu bañ a fay ay employé li war mooy nga ne ko kaay ba mu dem ba nga négocier ba pare ba def lépp ba pare ba mu bañ ne du fay nga doog a tëj ay compte am mhm. mais bëri rek épinglé nañ leen fayoo leen woon tëj compte populisme bu continuer di ci nekk mhm. loolu man d'accord